ma gis mooy ma ànd ak samay parents comme si waa parents waaj waaji nee nañ man baaxuma dama bon taxawaalukat laa lépp maa ngi koy dégg di si démb ba léegi ñëpp maa ngi koy dégg démb ba tey ñu may envoyé ay message ay audio naan taxawaalukat laa jël samay vidéo di ko yóbbu baaxuma waaji du ma takk ndax du takk jigéen bu mel nii man waaji topp ma ko moom moo ma topp gëmloo ma këni mënuma bàyyi di jooy di ma wax baal ma ak may àndaat ak moom ñuy dund lu ne man su ma nekkee taxawaalukat tamit waa ji yéex na koo xam ndax bu ma doon taxawaalukat la du topp man taxawaalukat la war ñaari taxawaalukat ñoom dafa njort ni ñoo yow dañ laa liggéey li nga nekk tayoo ko loo xam ne da ngay jékki-jékki def ko pare toog ji ne man sam bu ma waxee dëgg te yàlla sax su ma ko gisee comme sama buti di laay xaw ma lu tax li may tenir maa ngi leen di jégalu nag bu baax ndax xam naa ni ñoom wax fa dëgg yàlla bañaluñ ma dara te xool li ma leen di def ak li ma li ma leen di yàq ak li ma leen di def lépp te man chaque jour dañuy àndaat ak man mel ni mosuma leen def dara. Eh, dégg naa tamit eh, mos nga ko mos ngaa wax ba génne sa papa paaka ndax waaj. sam papa génneel naa ko paaka def naa ko lu ne gaañ naa ko yëpp amul lu ma ko deful ndax waaj saaga naa ko xas naa ko lekkeetuma jël sama yére dem laxwaat lu lépp dama ko doon def bu ma daan ànd ak moom di jóge si lu ko dama daan dem palaasam baa ma ànd ak moom benn kër bu mu nekkoon foofu la daan nekkee ak man. palaasam dafa am nekk. palaasam waaw dafa am nekk de bain. ah bi muy liggéey. waaw yow mosoo woon a am këyit. sa papa nee na bi nga juddoo déclaré la. après bi nga waree def examen ci la la dem déclaré la ci audience foraine defal la deux mille cinq sa tamit nee na deux mille cinq nga judd est-ce que loolu mën nga koo firi. bi ma defal jugement koy di dama ëmbal kon ba nageen fii maa ngi taxawaalu ba maa ngi jur ay doom di teg mais man ëmbaluñ ma di ma ëmbalaat am na ñoo xamante ni nii dañ leen a ëmbal leen bu fekkente ni dafa bëgg cee na ko takk ci faratay yàlla ak sunna Muhammad. avertissement waa ji ni ko léegi. soo ko bëggee nga ñu ñu may la ko. léegi ndijaayam si ma bokkal ndey ak baay dem ba ci suñuy liggéey palaasam mu ne ko indi ñaari kiloy guro xam may ko su dee danga ko bëgg mu ne ko waa maa ngi siy xel mu toog gisu ko mu woowaat ko téléphone bi ko indi paquetu tàngal bu cinq cent franc nga ñu ñu may la ko mu ne ko waa dégg naa li nga wax mu ne ko fan ñu laaj ko fu mu dëkk mu wutaat fu mu dëkk mu ne mbuut la dëkk xaw ma chaque jour mu di ko jël si ñu awatis ko ba sonn mu bañ ma may la ma jënd buróom may la ko te bu boobu ñu koy ñaan si nañu àndaale oto bi ko yóbbu du ko fi bàyyi xale bi lànk ñëw xale bu góor bi xale bu góor bi ba pare tombe quatre femmes ñett ñi ay mineur lañu kenn ki am na loom moom mu détourné ko liggéey ko ba yàq boppam noonu nga ko gis moom daf kaa liggéey ba xamul fu muy taxaw waa ji daf ko liggéey mu topp ko mu topp ko yow yaa yaay ma bàyyam sax bu ngeen taxawoon dikkee di leen faale waa ji lay faale parce que waa ji moo ko na ko waa waa kër waa kër ki waa kër bu góor bi ñooñu lay fréquenteel ñoom lay waxal saa bër ci démb yow est-ce que waxtaan nga jour dañ ci doon wax bi ma demee ba xam ne waa ji takku ko daf ko bëgg a di ko di ko yàqaat di ko di ko fowe looloo tax man ma génn ma di ci génne xelam mais mu mujjee génn nangu ci génn parce que détourné na xelam ba pare. xale bi ban année la judd. xale bi 15 ans la am. ñun ñi ko jur ñoo xam ban année la judd. ñun ñi ko jur ñoo xam ay kayitam te da de licence am 15 ans moo ci ne. léegi daal man ni ma ko gisee mooy yàq na ko yàq na ndekete buur la nekkoon te mën na maa waat ci njool màkka ne xale bi su génnoon du ko takk benn dem ñoo ma ne ñool ñu ñool ñu may la ko nga génne ko man ma may ko ko ñàkk ko may ma may ko ko ma ma may ko ko ma bañ eh, amul ma njëriñ waaw mais ko xam mais man sama kër moom cambal cambal kere may sàngoo suuf barke alxuraan kay sama doom d'accord dëgg la maa ko jur jugul waaye li wér te wóor mooy nekkul neenu neenu neen moom kooku ma mën naa ko war mais nag lu waaye def sa bopp quoi lu waaye def sa bopp man sax waaw man kër kër waay sax xaw ma ko xaw ma ko la dëkk man xaw ma kër waa ji ma kër paa bi ci biir place am am na néeg bu ndaw ci biir waaw loolu daal moom wóor na waaye kër paadeeg man xam paadeeg yëpp intéressé wu ma di ngeen mën a ñaan ko commanda bi ñu ñu waxtaan ci seen biir ñu wax deel ngeen teg ko d'accord bu ngeen ko mënul bàyyi leen ma ma liggéey sama liggéey bi ñëwee ci commanda bi commanda bi moo ne loolu mënul nekk tëj ko njëriñ bu ko bëggee takk ma bu ko bëggee takk takk bu ko bëggul takk naa sax ñu boo gisee ku ko bëgg bu amee bu amul ñoo la laaj ma ma xaaj may la ko nag man gendarme ak douanier pilote ak pilote laa yemale man moom sama dama nga koy def lu nga amit jël yow ne ne wóor yow yaa ngi mais xam nga ne xale bu jigéen bi yow ndooy bu doon sa dooma bis bu doon sa dooma xam nga ne noomee du la neex xiifoo maroo rafle woo defoo dara waaw mais nga topp benn góor rek topp benn góor rek liggéey ko ba mu yàqu mais ñu li ndax man sànni nañ fi weyu mbaam ci soo biir kër sànni fi saafara daf nañ fi lu nekk bu la neexee naa la ko photo am waaye boo amee wasa mën naa ko foto lépp am waaye la ko. weyu mbaam yeeg yooyu pour lan pour liggéey ndaw si. non liggéey ma man liggéey ma. ah loolu dara. sama doom fan yëpp dama ne sama yaayam temps yi la ma fi nekkee dama ne yaayam bu mu tongati ndax ay saafara ak lépp liñ ko jox barke araxuraalu karim nee na sama kër man tamit sama demal demal lu fi am ku bëgg ma may la ku bëggul bàyyi la ma sama kër moom moom na ma bàyyi yoon li mu wax c'est pas vrai li wax amul xale bu góor bi man maa ko papa man maay papa man maa ngi tudd Sandiaye Guèye problème bi mu amee man yàlla xam ne ne moom yóbbu moom sax ne moom moo xale bu jigéen bi amante na léegi bi nga xamee ne moom mi ngi fay dem ci papa ji wax man papa ji keroog bi mu demee gendarmerie laa ko mu ne ah, ma ne mm-hmm. sama kër lan la la moom maa ko jóg. sa doom lan la la wax. sama doom moom mosuma wax ne day seet ne day ne day bëgg xale bu jigéen. Hmm. bi mu jëkkee après bi ma ko laajee mu ne ma sama doom bi dafay ñëw foofu sama kër di ñëw kër ma laamin di fa ñëw di fa ñëw di fa ñëw ba ci yàgg ma ne ko bu fi ñëwee xale bu jigéen bi xale bu góor bi téye téye tànkam bu matu fa léegi xale bu jigéen bi moo koy fekk di ñëw di ko fekk si xombal. Hmm. di ñëw di ko fekk si xombal di ko fekk si xombal di ko fekk si xombal léegi nag papa bi il paraît daal di ñii ci affaire boobu. Hmm. daal di génne xale bu jigéen bi. ko génnee xale bu jigéen di ñëw parce que moom fu mu mhm. ñëw na xombal daal xaw ma fu mu daal ci xomb. waaw léegi ñu toog trois jours papa yeeg yaay ji di ko dikk ni moom comme moom moo daan ñëw di ko seet si kër Malaadi. Mhm. donc normalement moom war naa xam ci xale bi rek daal dikk xombal fekk ko fi muy liggéey bi liggéey ko fi muy liggéey ne ko yow ñun bintu faal xale bu jigéen bi nga xam ne moom moo daan ñëw di kër suñu doom bi dañ ko gisul ñetti fan a ngi nii ñu leen man gisuma ko ñu ne ko yow nag fu mu nekk xam nga ko parce que ñu daal dem sànq ne dafa léegi ñu ngi dem planté ko ñu ngi dem planté ko daal donc extrait na sax ci daal koy kii ne xale bi ñu ne loolu te moom moo ko deful moom moo ko violé bon biñ samay sant bi xale bu jigéen bi moom taxaw ne ne Pape Demba violé wu ma deful moom wax nañ ko foofu violé wu ma deful na man maa ko bëgg maa ko toppal sama bopp comme maa ko bëgg maa ko toppal sama bopp nan ma ko may moom mu dikk foofu sant bi ne ma léegi bu ngeen bëggee ma may ko ma retiré planté bi man ko noonu non man du ma doxee ci noonu ci affaire bu santage bi kooku du ma ci dox loolu mu ne comme loolu la dañ koy plainte mën na ko plainte yàlla baax plainte yóbbu boo ko yóbbu mun naa mën ko yoon am na de ne ma sama papa man dafa wax ne am naa lépp douze ans ndax defal na ma ñaari jugement mu ni donc xale bu jigéen moom dafa rangé ci côté xale bu góor bi nga xam ne donc bu tuumaal doomi jàmbur ci loo xam ne deful teewul jiwul man moom man affaire bi jaaxal na ma ba mu dikkee wax ma léegi boo nangoo ñu marié ko retiré plainte bu fekkee ne man nga ko boo ko comme nee na chef de brigade ne nan ko nan ko fa envoyé ñii a donné par exemple le six le six lu ñu moom lañ ko moom lañ koy mais est-ce xam nga tey jii xale hmm. xam nga tribunal këyit la xam waaw xam naa ko waaw donc ci këyit yi xale bi. waa ci ci mais am na ñaari ci aussi loolu la ñetti ci. Mhm. te kayitu 2005 kuñ ci porté plainte. non ça naa ko xam naa ko waa détournement de mineur lañ ko toppee mais xale bu xale bu jigéen moom nee na moom li déggu ko. moom moo ko topp aussi. mais nit ku nekk aussi comme ni la ko waxee nii. war ngay fekk sa diggante ak sa ak sa trahi bàmmeel. mënut a mënut a activé mu def loo xam ne nii xale bu jigéen bi activé wu. parce que moom bu fekkee ne d'accord ñu may ko ko. Mhm. kon moom kon moom du activé. waa léegi xale bi yow xam ne ñi mu ëmbal nag lañu li ñu wax. billaahi wallaahi amul ñi mu ëmbal amul benn xale la amal doom muy xombal man sama doom yabul ma bay def yenn xam naa li ma doon loolu daal sama doom yi moom moom bu doomam noonu man sama doom yabul ma bay def noonu li ma li ma la wax man xam naa ko benn xale la amal doom xombal et c'est terminé. ay ñeenti xale yooyu wax yëpp ñaawal teeru jàmbur la fexe suma doom ngeen man taluma ay takkat actuellement yooyu yëpp ay problème bi nga xam ne mooy sans problème social mooy sama doom na génn problème bi ko amoon moom lu ma naqari musul am benn problème c'est la première bi mu am rek moo ma naqari tëj ko nekkul ci yoon ba pare dañ ko tëj foofu lan la def ba mu tëj ko daf kaa jiñ kan la violé man mii la ko jiñ man la violé njiinu viol bi nu mu demee naka la ko jiñee viol parce que daf sama papa daf ma génne woon ma ci kaw bi ma génnee léegi nag xaw ma jàppale moom rek laa bi mu la génnee foo bi mu la demoon. bi ma génnee dama jël sama bagage ma dem Dakar bi ma demee Dakar benn xale bu góor moo jëlal Samb. bi nga demee Dakar bi nga jiitee seen kër dem fan nga jëbali directement. benn xale bu góor moo ma logé. foo xale bu góor bi. xale bu góor bi sama copain la woon mais dañu bàyyante man ak moom. bi ko biñ la sa papa génnee da nga koo woo téléphone. waaw dama kaa woo téléphone man ko maa ngi Dakar. te aw ma fenn foo xam ne xalaat naa ko pour fanaan. doo ma dimbale bu nekk Kër Massar. waaw benn hôtel hôtel. ma nekk fa ba ci yàgg bi ma fi nekkee. léegi Dakar dafa yéeme li ci ko woowee moom sama copain boobu nekk xombal léegi ma expliqué.